xama ni les 45 rapports de l'OFNAC qui dorment dans les tiroirs du procureur doivent aller en instruction nous ne pouvons pas nous contenter euh, d'une simple publication euh, donc euh, loolu euh, moom dañu des ba tey ci logique gu li nga xam nag moo di yoon bi ndax Papa Alé Niang mi ngi ñu xamal ni lu tolloo ko ci 45 rapports bu nag publié mi ngi stable ki nga xam nag moo di procureur mais jusqu'à présent daanaka si publication rek euh, ne na nag mooy ci wàllum rapport bi na ci wàllum euh, euh, nga aussi vision Pape Alé Niang jëmale ko si 45 rapports yi nga xam ne moom jàpp bi nga xam ne am na ko mhm. xam nga dañoo mës a am ne nit boo nekkee si réew am ñoo xam ne ñoo ñooy ñoo la tabb saa su ne ñoom li ñu bëgg moom ngay def. Mhm. mais Pape Alé Niang dafa nekk di jouer benn rôle bu am solo moo di sentinelle. Mhm. mooy benn. liggéey bi nga xam ne ñoo ngi ko koy sant ci RTS moo ngi koy def. Mhm. mais taxul ñoo ngi am Pape Alé Niang bi nga xam ne moom la ñu amoon daaw wala Pape ale Niang bi nga xam ne moom la ñu euh, amoon mooy euh, Pape Alé Niang boo xam ne il est libre. Mhm. joxe li nga xam ne moo di xalaatam. xam nga waruñoo nekk si réew moo xam ne nit bu la tabee da nga koy dunguru. Mhm. nit bu la tabee maanaam si bëgg-bëggam rek ngay dox nit bu la tabee maanaam euh, lu ko neex rek ngay wax. mais dañoo am Pape Alé Niang boo xam ne li tax ñu tabb ko dañoo jàpp ne moom taxawaayam bi nga xam ne moo am ca nga euh, jàppal ne Pape Alé Niang rapport yooyu muy wax. am na mhm. ca benn rapport goo xam ne tax na ca moom moomee ñu daan ko ca. Mhm. mooy rapport ba ma la doon wax mooy di euh, bu Cheikh Omar Anne ca Kuddu. Mhm. mooy bi Nafi Ngom Keïta defee ba pare Pape Alé da ko cee defoon benn livre. livre boobee jàppale ne Cheikh Omar Anne da cee yóbbu woon Pape Alé Niang yoon ba Pape Alé Niang moom ca lañ ca daanoon. mooy diffamation bi. te. Euh, moom dafa dem jël li Nafi Ngom Keïta def ba pare loolee la loolee la exploité. tey ñu ñuy wax rapport nag ñu ñuy wax beneen rapport rek wax ñu beneen rapport. Mhm. xam nga wax ji buñ ko waxee ji nga nag yàlla dafa def leen. Mhm. mooy dañoo nekkoon ci réew moo xam ne am ñoo xam ne dañ leen tabb. Mhm. nga ñëw ci OFNAC euh, nga ñëw ci euh, nga ñëw ci rapport bi nga xam ne euh, mooy bu Prodac. ñu ne la Pape Malick Ndour jiite na Prodac yoo xam ne amul. Prodac mooy lan dañ ne woon dañuy defar des DAC moo di lan domaine agricole communautaire. ñaata lañu ñu waroon defar. ñu ne Mambay ñaa mu ne amul. tey bu ñu demee euh, nga dem ca li nga xam ne tey anim ga nga xam ne lay Fred gisee ni leen joxe woon marché bi. local Afrique ni nga xam ne noonu lañ ko ca tuddee. mais boo fa demee nga xam ne dara dara amu fa. ñaata nit la rapport yi lan la génnee. ji nga nag gëm naa ne wàllum crime wàllum justice wala ñu bëreeg yooyu foofee yoon da ca war a def liggéey. Mhm. mais ji nga bii xam nga lu tax bii mu am ca solo. Mhm. ji nga euh, sila ñii waruñoo génn réew mi. Mhm. ñii waruñoo yëkkati seen kàddu di wax ci réew mi. ñii waruñu leen may temps sax bu ñuy xalaatee bay gas xaalis bi di ko gas di ko suul. yow réew nan lañ ñu mën a amee ñu ne réew mi kat jàppal ne autosuffisance lañ bëgg. réew mi kat dañu bëgg nit yi dund. nga dem kenn nee na jëndee na ñebbe ci réew mi di Sénégal kilo 4000. <laughs> kilo loolu amul kilo ñebbe 4000. mais loolu foo nga nekk demo wala nga doon en fait. xam nga dafa bëri parfois ñuy tooñ nit di naan ko kii di maanaam kii dañ koy tooñ. nit ki mhm. ñuy tooñ la. Mhm. mais ñu baal ma si wax ji quoi mais ñi ñu jiite woon ñooñ de nit ñu ñu tooñ lañ quoi en fait maanaam dañ doon sucé suñu. ay ay dëmm la ay dëmm la <laughs> ay dëmm lañ ay dëmm lañ kilo moom la moom laa bañ a mu kaddu gi laa doon bañ a génnee. <laughs> dëgg la mais. non loolu noonu lañ ñu ne la yéen ñii ngeen jiite yoruñu. Mhm. ñu ne la ñii bu ñu lekkee duñu naan ñu ne la ñii ceeb amuñu ko ñu ne la université ay xale ñoo fa ne di mhm. jàng la ñuy lekk baaxul mhm. yow ñu ne la ñooñee defal ngalawaay nan la ñuy def ba seen dundin gën a ñoŋ Mm-hmm. nan la ñuy def ba ñooñu lekk ba suur yow ñebe nga mën ko jëlee quatre cent yóbboo ko mu mille yokk si ay zéro. <laughs> fekk daaw nam daaw nam ma nammee de. mais mais boobu ba ñebe la en man loolu laa bëgg a xam. Mm-hmm. léegi nag xamal lu si doy waar. rapport épinglé kooku. Mm-hmm. rapport bi ne ki nga xam ne moo di Cheikh Omar Anne. comme yëfu OFNAC la ñu wax. rapport bi dañ ne kii waratuñ koo tabb daray loo xam ne état moo koy. tabb nit mais lan lañ gis dañ koo jëlee dañ koo jëlee si DG kudd bi mu nekkoon. Hmm. déggee ko jàng dénk ko xoolal jàng bu kaawe bi. Hmm. te Cheikh Omar Anne ñëpp xam nañ totoo tapp paate bu baax mënu ko. mënu day ñëwaat ne Macky Sall moo doon encouragé ay ndawam ne leen sàcc leen. Hmm. Macky Sall moo bëggul woon l'homme qu'il faut à la place qu'il dellu leen si ginnaaw Macky ñan la àndaloon bi muy ñëw. Macky mësul bëgg ku koy wax dëgg. Macky mësul bëgg borom xam-xam Alioune Badara Cissé yàlla na ko yàlla yërëm. même Cissé Lo mi nga xam ne bu waxee nga xam ne penalty sax la dondox mais bu heure dëgg jotee da ko doon wax saal Sall. xoolal Macky maanaam si mu jël ñan la àndal. ñi def sale bulo ay ñi di sàcc. ak ñi nga xam ne ñi amuñu ngor. si nguuru Macky Sall la ñuy xam kat mooy kan. Mhm. Macky Sall xam man dama koy sant. Mhm. daa tax ma xam kan mooy sëriñ. Macky Sall daa xam ma xam kan mooy juge kan mooy procureur Macky Sall dafa tax ma xam kan na ay kàddu ménguk li nga xam ne moo di jëf yi mais Macky Sall daa tax ma xam kan mooy sàcc. Mm-hmm. mais sàcc yooyee mënuñu leen jox suñu àll ñu def jëfinu koo xam ne jëfinu kuy naaw la. Mm-hmm. ku ñuy tooñ. ñu ne leen kaay leen ngeen defar réew mi mm-hmm. lañ leen si gis danga war a jëriñ sa réew. paa nga bañ a jëriñoo o contrer ñoom ñoo jëriñoo. ñoom ñoo ci dawal ay rent ñoom nga ji ci réew mi di Sénégal batiment yi mel ni ay USB di samp xola fu la neex. Mhm. tabax ak ni mu mel. réew moo xam ne dafa ndóol dafa am jafe-jafe mais yow amoo terrain amoo terrain aw ma terrain amuñu ko. Mhm. amuñu ko de. faye ko faye bor la ñuy def. Mhm. mais si réew moom ñi nga xam ne ñoom la ñu tabb pour ñu ñonge leen suñu dund pour ñu dem ñu ne ñu ñooñee ñoo jël suñu alal tey nag foofu. moom ni ma naan temps de justice si cadre euh, ba si côté si waarum ñi ñàkk seen bakkan bii hmm. benn dañoo war a lijjanti seen i mbir si nu ma gën a gaawee hmm. ndaxte boo defee musiba si pénc mi hmm. ñëpp xam ne yéen dangeen ngeen sàcc ngeen amaat fitum toog si pénc bi naan ñi ñoo ñu waxoon projet te gisuñu ko loolu yépp askan wi la nag bu Bassirou Diomaye son excellence ak Ousmane Sonko bu ñu bañee ñi yàpp leen au ñu génnee rapport yi mais justice daa war a dal seen kaw ni mu gën a gaawee man dama gëm ne ñi nekkoon si nguuru Macky Sall qu'importe ak comme si mënti doon képp koo xam ne dañ laa jox ay post yoo xam ne dañ nga ko jiite woon yoon dafa war a mën a maanaam dañ laa war a woo woo bi nag nekkul sarnement woo bi nag nekkul ne tey liñ doon teg ñee woo bi nag mooy tey rapport la dañ ne épinglé te épinglé ça ne diir pas que ni da jël mhm. xam nga ñun daanaka sax dañoo waroon tey ni ko nit yi di wax maanaam tey bon Euh, mën nañu am bàyyi leen tuuti ñu xool def nañu wala def ñu ay leeral. Mhm. mais yow ñi ku ñu si tuddal da nga naan da maanaam da ngaa sàcc. ndax sàcc moom mënta weesu. 400 mhm. nga yóbbu ko 4000 kooku moom xoola voleur la. Mhm. mais ñu waratuñ leen bàyyi ñu toog seen kër tëdd nelaw di yàndoor. mënul nekk mais nag ñooñu waruñu leen bàyyi li fi Macky Sall defoon andi fi créé euh, ne dafay jël au contraire lañ si lenn lañ si mujjee gis mooy wàllum politique. waxuñu acharnement. waxuñu fayoon toog mais xam nga lu ñu wax mooy jub jubal jubbanti. Mhm. waaye nag xam nga lu ñu wax ñi lekkoon suñu alal ñu gooxi ko. Ah, waaye buñ ko bëggee buñ ko bëggul. Mhm. benn Bokk Yaakaar majeure partie ba. Mhm. boo leen doon jël sur cent ñaar nga naan jëluñu ñoom ñëpp jël. suñu alal bi ñu jël nag il est temps ñu goxi ko. vraiment il temps moom moo. yow aussi mm-hmm. euh, sa gis-gis ci euh, rapport yi nga xam ni daanam daanaka mi ngi toll ci 45. Mm-hmm. nekk ci loxol procureur jusqu'à présent amagul benn mbir boo xam ne def nañ ko ci comme acte. Mm-hmm. pour rek déglu ñi nga xam ne rapport bi épingle te à chaque fois rapport yooyu sa jeexantal dafay am li nga xam ne nag moo di recommandation maanaam kii woo ngeen déglu ko waaye a na dama ne même au delà de waxu Pape Alé Niang ak euh, bëgg-bëggu président de la république. Mhm. loolu dafa nekk demande nationale sénégalais ci seen bopp ñoom ñoo réclamer loolu am. Mhm. te réew mi xam nga bi fi président Macky Sall di nekk dañu doon wax naan euh, d'ailleurs moom bi muy soog a ñëw au pouvoir dafa doon wax naan réew mi ñëw fi pour tabax ay tali. Mhm. wala ay train wala yu mel noonu réew mi objectif bi njëkk mooy mu def ko état de droit. mais jamono jii réew mi dama gëm ne boo doon defar ay tali or sax te justice tegoo ko. du saf nit ñi. Hmm. parce que même fal gi ñu lay fal mais ñun élection yi ñu weesu si yenn euh, euh, nit ñi ci ci ban base lañ doon tànnee ki nga xam ne moo lañ doon votel hmm. mooy tey Bassirou Diomaye fay mi déjà moom rek euh, man mi ñu tooñ par exemple teg ma injustice mais Bassirou Diomaye fay moom mooy symbole injustice parce que moom aussi li ma dund man comme injustice moom loolu la dund. Hmm. te man comme man dund naa loolu moom mu dund ko gëm naa ne kii bu ma fexee ba xeex ba mu nekk président de la république justice dina am Ousmane Sonko la même chose. donc tey choix bi sénégalais choix maanaam voté gi ñu la voté rek am na si ñu bëri ñoo xam ne mais tey ñaata nit ñoom ñoo toog seen ay fam jël leen euh, euh, seen ay doom ñu jëleen tëj leen ci kaso bi su lu teguwul fenn. Uh-huh. jàpp yoo xam ne teguwul fenn. am na ñoo xam ne dañu leen doon defeere ñu ne ba si kanamu juge juge daf leen xool du xam la la leen war a wax. Uh-huh. non sant Sonko ñu tëj la. xool sa téléphone nga am photo Sonko ñu tëj la. foo dëkk nit ku taxaw bracelet nga <laughs> ñu tëj la. après léegi kooku day dem taxaw jàkkaarloo juge juge bi xool ko xool xamul lu mu koy wax mu ko demal sa comme ça ñu àtte léegi bàyyi nañ ko mu dem. Mhm. pendant tout ce temps ay ndi dundu loolu. léegi loolu tey jii boo gisee tey mais ay euh, opposition bu gagné élection présidentielle au premier tour c'est une première fois au Sénégal. Mhm. te injustice boobu moom moo ko waral mooy tey ki doon toog maa ngi ko doon wax avant élection yi ma ne man ce régime là ñoom dañoo dal xel quoi pour ñoom. dinañ jàll premier tour waxuma sax waxuma sax euh, gagné de. Mhm. ndax ñoom dinañu romb premier tour ak ñii. parce que imaginez yow su ñuy wax mille familles détenus politiques. si la man dinaa toog suñu kër ñu jàpp sama frère tooñ ko tëj ko si kaso bi ma dem voté la jël Amadou Ba pour continuité. xanaa nga bëgg lu bon. ah mais saa <laughs> na loo xam ne un plus un égale deux la quoi yow di nga toog sa kër yaay ji ñu tëj doomam tëj yow mille mais mille détenus euh, politiques c'est mille familles. Mm-hmm. dangay toog ñu tëj sa doom ci kaso bi après élection ñëw ñoom ñu dem def seen campagne di xalaat yow yaay bi nga xam ne sa doom mi ngi woon ci euh, mille de suñu politique yooyu nga dem voté li jël Macky Sall wala Amadou Ba. Mhm. c'est pas logique. Mhm. donc li am nii ak 54 pour cent yi loolu cest ñoom ci seen bopp waroon nañu mën a gis mbir mi muy ñëw. Mhm. donc actuellement fal googu ñu leen faloon li ñu gis mooy nit ñi. bëgg nañ dëkk bi développé de. Mhm. li ma Bouba Diagne la le ministre di def baax na ci agriculture bi et sénégalais kontaan nañ ci. Mhm. li gis ministre de de de l' di def am na solo. Mhm. ministre de l' enseignement supérieur li bi def am na solo leneen ak leneen ak leneen am na solo. mais sénégalais leneen loo def te tegoo justice du leen saf. donc loolu man jàpp naa ne ces dirigeants ñoom seen bopp comprendre nañ ko. parce que est-ce que premier ministre mës na def déclaration ba mu jeex. waxuma euh, ci communication institutionnelle yi. Mhm. mais génn rek def sortie wax bu mu daaneel te waxul justice amul. amagul mhm. bis boo xam ne xëy suba bale la doon bale. Mhm. bale bi ak waaj nawet mais contexte bi li muy xat xat xat Ousmane Sonko dugal na ci justice ba doon wax bis boobu ne ñu ñu guuxoon dinañ goqi le président de la république. Euh, à chaque fois que mu am occasion dina wax ba tuddaale mbirub justice. d'ailleurs ci prestation de serment wax na ko ci. occasion bu ñu am ñu ngi koy wax loolu ça montre que déjà man dama gëm ne xoola du jar sax nit ki dund injustice. toog ne hmm. non monsieur le président da ngeen a war a def nangam wala da ngeen war a def nangam parce que ñoom ci seen bopp dañu teg justice injustice boobu ci seen kaw. Hmm. te nga woon fii lim lu bëri Bassirou Diomaye Faye lan moo ko dugal prison def benn étude wax li muy wax pare ñu ne ko coppet 22 heures yóbbu ko tëj. attaque lu teg nii. Bassirou Diomaye fay boobu noonu moom mooy toog ne bon léegi dañuy bàyyi non c'est impossible. et parfois nga gis certains ñuy wax ay waxu loi d'amnistie foofu laay waxee à chaque fois que urgence la actuellement que assemblée nationale bi ñu di dissoudre ko dem ci yeneen élection euh, législative euh, daal di fal yeneen député suñ ci jógee c'est-à-dire mm. assemblée bu bees buñ ko def buñ ko defee. urgence bi jiitu bis bo maanaam bis bu njëkk bu ñuy taxaw naan dañuy voter de loi loi d'abrogation amnistie bi la war a ñu abrogé cette loi bu nopp bu ñu noppee si loolu mais saa mbir yi carte gi leer na. li ci war def ñu def ko si jël dossier bi jébal ko justice. Mhm. li ci war ñu def ko si. exactement euh, yaa ngi koy junj léegi muy kaaw ki nga xam nag moo di Cheikh Omar Anne démb gis nga euh, entretien bi nga xam ni.